am ma aaye leen man maa jël taxe dem ba ca préfet mu ne ma danaa fa yónnee ma ne ko déedéet saxaar ci ngaay naar ci ngaay maa moom ñoo ànd ba yegg si jaar fii ba yegg ca borom oto ya borom oto yi mu wax leen na leen ana seeni kayit ñooy naka nakal mu téléphoné commandant brigade bi dégloo leen ba mu téléphoné commandant brigade bi commandant brigade bi daal di jël oto ànd ak ñeenti eh, aliment ba ñu yegg si mu na leen arut arute leen ñu arrêté ñu wax mun a leen indi leen yóbbu kayit yi ci préfet ba xam kayit yi nu mu demee préfet jël sama numéro ma a ma ne danaa la woo wooxuma ba fi may waxante yéen léegi léegi ñu xëy yàlla mi dara tawul ñun ñëpp ñu xëy ndox mi taa fii ñii di fab ay paan ak di këpp di ci jaar jàll oto yi ñëw toj loola lépp yóbbu ba ma ñëwee mën a leen tiwo baa ngi nii bu ci oto bi jaaree day toj ñu ne ma yaa bëri wax la ma xale bi jëkk a wax ma bañ jigéen ñi dégg ko mën a pat bañu jële fële mu di ko puus di ko puus fee ba bëgg koo daane fii ci sama buntu ma ne ko da da koy daane ci sama buntu kër ma ak moom dee ak suusi waaye doo ko yóbbu sama buntu kër mu saaga ma jigéen ji bëgg a dal ci kaw euh, peel bi mën a leen toog leen chauffeur bi ci boppam moo saaga borom daraan gi waaw moo saaga ba mu saagaak beneen chauffeur wàcc na fekk tuuti mu xeex a xale yi waaye nag man sama ba ma buubee noonu nag ma dem bay daanu nii yat lii may sukkandikoo moom laa jël ci suuf tànk bi tege ci suuf dàllee yóbbu na ko xaw ma fu dàllee ne moo ma yëkkati moo yóbbu dàll yi xaw ma fu dàllee ne xam naa fee la ko jam xam naa ne waaye man gisumay dàll ndax tuuti ma daanu da booba maa ngi tal sama bopp nu nit di jëlee machine jàkkaarloog nit doo accéléré wuti nit ki boo pompé amul liquide amul dara bu pa bu fekkee frein ni ku fa nooy def doo ko rey teyuma ko rek ngay wax wala ñu ne dafa da ñu wutal koy kay ne dafa dof ah say bokk ñàkk lii duma ko bayee nii kat seen lii du ngeen ko baxee nii de wax leen ak ñoom de lii na arut gis ni ki tey xale yi li ma leen wax nee naa leen bu kenn xuloo bu kenn xeex bu dara di si lu may xuloo wala xeex nañu ñëw dal ci sama kaw ba rey ma ba pare ngeen door a wax waaye ngeen xuloo loowu ma leen xeex loowu ma leen. a doom ma ma tax a jóg waaye dégg naa coole ñooñu yàgg génn ma mais ma déggee kii xam laa génn waaye am na sens waaye bu wàccoon dana xam na góor la waaye fekk na fii jigéen. ndax magam jëmm doo fekk ay kii ay kii magam jëmm di ko daga ay saagay nday ci lii rek lii rek kenn war kee saa kenn nday am na sens bu rëy nag. ndax tey bu fekkoon ñun mu wàcc tey ñu fekk ko fii tey dañ koy tiga dege ni mu da ngeen fekk ñu fi ko ci suuf si barka yoon ci dama ne chaque jour 5 heures du matin laay yeewu pour dem liggéey suma ma jëkkër bu ma yóbbulee damay dox ba buntu base fofu lay jël auto pour dem liggéey parce que fi do am auto bu lay yob do am clando do am jakarta jakarta c'est la wax duñ fi dugg ci kon nak da ngay dox ba buntu base pour nga am auto, ba suma ma yob yóbbu ma bu fi nekkule moom damay dox té ma nekk jigéen 5h du matin xoolal nu ñuy def suñu yoon suñu yoon yépp ay a am ñu sa fu ñuy jaar vraiment am naxar ci li ñu fekk fi tay parce que ñun ay euh, doomu koñ bi lañ té dañuy né euh li fi am tay euh dafa mel ñu ñu ko def parce que

ñu commencé combat bi à partir de tay parce que li rafetul so xolé koñ bi ni mu mel rek ñun daan nañ fi jaar mais nawet daanul empêcher nit ñi ñu jaar parce que ndox bi da daan dem mais suñu gisee tay li vraiment dafa ñaaw té li ko li li ko indi nag parce que ñun man dama gis né fan yépp ay camions ñu ngi jaar sama buntu kër xaw ma nu mu demee ma demandé ay renseignements ñu ne ma ci caal lañ koy jëlee ci ci kaw lañ koy jëlee loolu moo fi indi won tay mais xawmo ni la fi fekk. te li ma fekk ni tey dinaa ko dina nekk combat boo xam ne euh, ñoom tey sax ñoom suñu suñ suñ suñ suñ ci dawee man dina porter combat bi ba liñ ci soxla mooy gagné ko ba de telle sorte que lii ñu arrêté ko. parce que vraiment lii dafa dafa ñaaw euh, dañ ci dem ak ak le dañu waxtaan ak moom su dee moom mën na ko arrêté ñu ànd ceeg moom su ko arrêté wul ñun. dañu porter combat bi te dañu dem ci autorité administrative yi nekk yëpp dañ dem waxtaan ak ñoom ba vraiment lii ñu arrêté ko. parce que population yi vraiment soo leen ak ak ak dëkk bi ni mu méttee vraiment soo leen jàppalewul vraiment waratu leen def lu leen di naqari. man su ma fa ñëw dama fa daan gis samay frère ñuy ñuy jël euh, utiliser ban bi di ko defar ay mool di ko jaay di di suturloo di ko yóbbu seen famille kon tey suñu loolu suñu la ko bëggee xañ dañu indi problème problème boobu nag la ñu bañ mu am ñooñu loolu ñuy suturloo tey soo leen mënul ñëw nga jàppale leen waroo leen ko xañ. parce que defe naa ne yii mooy indi euh, euh, population yi à chaque fois di jóg di indi ay problème parce que chaque fois soo waree def dara da war a toog ak ñoom ñi fi dëkk nga waxtaan ak ñoom ba ngeen am point euh, point d'entente ngeen soog a dem ci loolu. mais damay dañuy seet à chaque fois ñi fi ñi am doole à chaque fois su ñëwee ci population yi dañuy ñëw def lu leen neex spa bi lu mu expliqué leneen mun na fi xaj. leneen mën a fi indi parce que li ñuy def sànq paa bi dafa ñaaw xëy na kon li mu waxee doom su ñëwoon mën indi beneen aspect mën na ko fi indi te loolu war na mën a ñàkk.